mi di wax ak yéen mi ngi tudd Ahmed Tidiane moom mooy préfet bu département bu Kaolack euh, gannaaw bi ñu santee yàlla dama wax ne dañu fi dajale woon tey kuréel gi nga xam ne moom la wax CDD euh, mooy daje rek saa su ne jamono bu ñu amee lu ñu soxal lu ñu ñor lu mu ñu bir ne lii yokkute la ci askan wi tey nag ñu jagleel ko kon waajtaayu gàmmu atum ren bi euh, mu doon naam liggéey bu ñu miin nag duñu ci naagu waaye ñu fas yéene ko jaarale rek fañ ko doon jaarale ci taxawaay ci Pastef euh, préfet lëngoo ci ak kuréel bi nga xam ne moom lañuy wax COMAF nga xam ne lépp luy xew-xew walla muy yëngu eh, ci ëttu suñu sang suñu baay suñu maam Maulana Cheikh Ibrahim ñoom ñoo koy fuglu ñoom ñoo koy saytu ñoom ñoo koy toppatoo ba ñu am ci li bëgg ci seen teewaay ñu ànd ci ak eh, mboolem service yi fi ne yenn yi ci wàllu région yenn yi ci wàllu département ñu war a yër li nga xam ne moom lañu ñu COMAF jébbal ñu koy faral di tuddee cahier de sollicitation te mooy gaaral gu ñuy gaaral seeni namm-namm seeni bëgg-bëgg yi nga xam ne daal bu ñu sañoon ñu jàppalente ci ngir organisation gàmmu gi mën rafet mën a taaru yooyu kon moom lañ doon waxtaane ngir jël sunuy matuwaay làmb na li ñuy wax kaaraange aar dëkk bi aar nit ñi ci seen jëm ci seen bakkan ci seen alal waaye aar leen itam ci seen wér-gi-yaram gannaaw xew-xew la bu doomu aadama yi di tase itam lu ñu man ñu def ko ci sellal barab yi ba benn loraange bañ cee jóge jàppandal yi nga xamante ni nit fu mbooloo daje ñu am ci soxla moo xam danga koy tuddee ndox moo xam danga koy tuddee courant ak yu ni mel yooyu yëpp ñu war ko waxtaanee ba ci wàllu jokkoo jokkalante li ñuy wax communication lépp ñu waaj ko te xam ngeen yéen ñi ma tàng ma tàllal micro que ne da ngeen ci doon pàcc bu am solo ñu war ko waxtaanee ak jàppandal nag yoo xam ne yenn service yi. war nañ koo baaxe ñi nga xam ne ñooy doon gani dëkk bi ak waa dëkk bi nga xam ne ñoo leen nay teeru euh, ma wax ne soo nee gàmmu rek daat ne xew-xewu diine day doon gis-gis bu gàtt dafay doon dégg-dégg bu cëkk xew euh, xew diine la waaye da ngay dawal sa bët ci la gën a sore mooy bu fekkee ne diine lañ wooteel itam lañu woote soo ko doon tënk walla nga làmbatu ko da nga ca daj yar danga ca daj jàngale kon da nga ca daj rekk loo xam ne mooy yokk nit ki def ko muy nit def ko muy gor su ma waxee gor nag aada taxul may wax waaye mooy mu doon boroom jikko ju rafet mooy mu doon boroom taxawaay bu rafet loolu nag ëtt boo koy amee jàppal ne yow mi nga xam ne yaa yore wàllu àdduna wàllu administration ëtt boobu yow lay liggéeyal yow lay jàppale loolu dafa doy rek pour wax ne ci suñ coobare naam waaye ci turu gouverneur ak suñu ay kilifa muy ministre de l'intérieur muy membre yu gouvernement bi yëpp premier ministre ak njiitu réew mi coobare woon nañu ñun ñëpp ngir def lu ñu man def kéemtalaay kattan te it loolu mooy sunu yéene yaakaar naa musuñoo am édition gàmmu boo nga xamante ne ni bu ñaaw la musta am waaye lu taaru fu mu amit lu gën a rafet am na dañuy ñaan itam bépp bu ñu mës a def ci gàmmu wax ne wax dëgg yàlla bi neex na bii rafet na ah buren bi yàlla na ko dàq loolu moom lañu lañu ñu yéene lool la bëgg te itam ci kàttanu yàlla dinañ def taxawaay yu méngoo ak loolu ci loolu la ñu soññ service yëpp ñu def taxawaay bu mat sëkk li koy waral nag mooy moom taxawaay du ñu mës a wàcc waaye ci ren gi foog ñu sóoraale bu dul dara ñu bàyyi xel ne euh, ñaar fukki fan ak juróom benn lañ koy jàppandi mën na doon juróom ñeent mën na doon euh, juróom mën na doon ñaar fukk ak juróom mën na doon ñaar fukk ak juróom ñaar waaye ci weeru setu mbar nga xam ne kon euh, li wóor ba wóor mooy ci biir nawet lañu fekk lañuy ñuy fekk euh, nawet nag boo ko waxee wax nga mbiru suñ borom kon boo doon def fukk ci taxawaay da ngay war a def ñaar fukk te loolu xam nañ ko waaye ànd ak loolu rek euh, ñu tàllal ko loxo ci gannaaw sunuy sëriñ euh, ba ñu am nawet bu baax bu mat waaye bu lewet lewetu ñu def gàmmu te xelu du am euh, sempi lu ñu samp du am dara lu jëm ci wàllu mbënd du ñu sonal ñoo ngi koy ñaan bu baax a baax loolu moo doon soloy jotaay bi Euh, ma dellu yéen ñi ma tàllal mikro wax naa service yëpp waaye yéen ci ngeen bokk looloo tax ñu ubbi volet communication ndax soo leen jotalul jottaliwu leen mu yem fii ci Kër gan defe naa ne du sotti suñu mbir la seen mbir la dañ ci daan jàppalante nag a jekk wër na ma ne di ngeen des di ci jàppalante ak ñun maa ngi koy sakku ala xaal kon yooyu kàddu laa bëggoon a wax di leen jéggalu damm-damm yi ak rëcc rëcc yi macha allah seetaan alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, xaadimu saahibul fayda mooy le serviteur détenteur de la fayda tijaniya di président COMAF Baye Mamoun Niass maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla yokk ngërmande borom tariqa bi Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu di ñaan yàlla yokk ngërmande ak leer te taas ñu ci barkeem borom pays bi borom Medina Baye soppee rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Mawlana Cheikh al-Islam Alhaji Ibrahima Niass radiyallahu anhu jotaayu tey bii li ko waral jotaayu fuuglu gàmmu Medina Baye ci at mu bees mii di atu sana hijriya tolloo gàddaay yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu koy séentu ci guddi fukk ak ñaar ci weeru rabiul awal ñu njortu ne dafa war a tombeet moom gàmm na bàyyi ren ak le vingt six septembre waaye mënaguñ ko confirmer lu ne weeru sang bu tedd bi sang sang yi sallallahu alayhi dafa feeñ teru weer woowu nag mën nañoo jàpp ne kon le vingt six septembre mën na ko nekk waaye mën na nekk le vingt cinq septembre mën na nekk le vingt six ci kaw loolu ci ndigalu alxalifa xalifatu saaxib alfayda sayidi wa walidi al aziz al xanuun mawlaaya cheikh Mouhamadul Mahi ibnu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ci ndigalam oote nañ jotaay bii nga xam ne ñu ngi ko seqak ki nga xam ne mooy préfet bu kaw Kaolack muy Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw mu uutu fi ñi fu uutu ci état ànd ak service yu am solo ci meeru dëkk bi ak ña ca topp ñëpp ñëw uy si oote bi nga xam ne oote sëriñ bi la muy Cheikh Mahi Cheikh Ibrahima Niass li solo si nag mooy waxtaan la ak weccoo ay xalaat ndax bi weeru juin tàmbalee ba léegi COMAF comité d'organisation manifestation Fayda Ibrahima Niass Mawlana Cheikh Ibrahim commencé na ay réunion samedi bu jot fii ci Kër Gan ñu jëloon leetar bind ko monsieur le préfet li ñu wax karne bi nga xam ne mooy cahier de charge bi nga xam ne li nga xam ne dañ koy séentu ci état Sénégal ci ay taxawaay yoo xam ne sëriñ bi daf koy sàkku ci moom ak mbooloo mi ngir askan wi ak taalibe yi gàmm si ak mbokk yi ak soppe yi monsieur le préfet daal nangu def jotaay boo xam ne nii CDD may ñu indil ñu fekk suñu fii na Baye ci kër gan ñu def ko li ñu waxtaanee nag du dara lu may li itteel sëriñ bi muy Cheikh Mahi Cheikh Ibrahima Niass ci jàmm taalibe yi ak soppee rasulillahi ak fu mën a bàyyeeko mais jàmm ñi dëkkee Medina bàyyi ak dëkk yu ko war ak Kaolack ak àddina waxtaanee nañ lu aju ci assainissement environnement social communication santé waxtaanee nañ ci yeneen ay pàcc yoo xam ne nii culturel nga xam ne mooy wàllu saqaafa ak lépp loo xam ne rek dafay jëme organisation wala pays bu toll ni pays Cheikh Ibrahima jëm kanam li nga xam ne moo soxal néew ju doole yi ak dëkkandoor yi te kenn réeréewut ne ci nawet lañ nekk yooyu yëpp comment fu waxtaane na ko ak euh, monsieur le préfet ak service yi Kaolack yi yim concerné yëpp teew nañ tey fii ci Medina Baye lépp loo xam ne nii luñ amoon daaw la sàkku nañ fi ren ba dolli ci leneen ci la ko jar waaye lépp loo xam ne tamit ni amuñ ko woon daaw te muy soxlaay askan wi ak taalibe yi sàkku nañ ko moom monsieur le préfet wax dëgg yàlla ak ñi mboolem àndat lu aju ci point yi ma tudd ak yi ma tudd ndax jotaay bi dafa xat moo tax dolli nañ ñu ci ak ay tontu yoo xam ne dal na suñ xel ñu ngi ñaan yàlla yàlla jàppale ñuy jàppale leen bañ muñ koo matal ci niñ ko yéenee ak niñ ko engagé ñoom ngir bégal sëriñ bi ngir bégal taalibe yi ak askan wi loolu mooy li ma doon wax ci lu aju ci lii li aju nag ci nga xam ne mooy organisation bi comment mi ngi tatagal mboolem taalibe Baay fu ñu mën a nekk ci àddina di leen ndokkeel ci fuglu gi ñuy fuglu gàmmu Medina Baay di leen tàllal loxo ci ansaaru diin waaye ci mboolem daayira yi ci mboolem association yi ci mboolem defkat yi xalaat yu rafet yi nga xam ne dañuy bëgg mu gën a baax ndax sëriñ bi loolu la bëgg muy gën a baax ñuy diisoo di jël xalaat yu sell yi di ko jëfee képp ku ci am xalaat wala looy digle lu rafet luñ mën a jëfee COMAF mu ngi ubbi ay buntam ci ay xalaat képp koo xam ne nii xam nga ne am nañ daje samdi bu nekk fii gannaaw cinq heures ci ngoon ku am xalaat wala nga bëgg a ñëw participer ci réunion am loo bëgg a waxal comment wala am loo ko bëgg a wattandiku loo wala loo ko bëgg a digal ubbi nañ suñuy bunt comme ni ko sëriñ bi bëggee bu loolu weesoo nag fi may tëjee rek mooy gërëm ñëpp gannaaw bu ma gërëmee préfet gërëm sama adjoint yëpp nga xam ne ñoom ñoo taxaw ci jotaay bi mu sëriñ Aliou Niang dafa ne ci tukki waaye sëñ Mass bi tey dafa am moom it dafa am euh, fu mu dem tey Cheikh Tidiane Gueye mi nga xam ne moo ñuy organiser lépp lu ñuy wax ak gouvernement bi rafetlu nañ taxawaayam maa ngi gërëm it mbooleem président commission yëpp ak ñi leen di jàppale ci commence bi di leen gën a sonj bu baax di ci jiital sama bopp ñu gën a takkaayu gën a nekk benn taxaw ci soxlaay sëriñ bi taxaw ci soxlaay taalibe yi ak askan wi suñ kemtulaay kàttan yéen ñi dëkkee Medina bàyyi dëkkee li wër Medina Baye ñu ngi leen di xalaatal ñu ngi leen di yërëm ñu ngi leen di bàyyi xel ci nawet bi ak euh, yeneen yi yi ñu war a defal ci mbalit yeeg yëpp waxtaanee nañ ko incha allahu taala lépp luñ ci mën rek danañ ko def di ñaan service itam ñu jàppale ñu bu baax waaye di ñaan tamit commission yi nga xam ne ñoo ne ci COMAF ñu gën a yaatu gën a bàyyi xel askan wi amul yi amul seen fépp fu ñu mën a àggale li ñu leen sant ci réunion yi pour ñu di ko def ñu gën cee taxaw bu baax fi may tëjee nag mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu ci fuglu gi ñuy fuglu ak waajal gàmmu Medina Baay dafa ne ci tukki tukki ma sori lool weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waaj a teeru mu ne qalbi dawaaman bi Medina arqubu qalbi dawaaman bi Medina arqubu shahr alhabibi id araahu yaqrub sama xol yëpp mi ngi aju ci Medina muy Medina gii di Medina Baay lu waral loolu mu ne ndax weeru sama soppe bi mi ngi jege si loolu moo ñuy motiver ñuy fuglu bés bu tedd bii nga xam ne waxoon na ne hani en li ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalun badaali naadirina jamaaluhu kon maa ngi ndokkeel yàlla nañ ci àgg ci jàmm yàlla may ñu tawfiq ñi ngi gërëm ñi ngi sant teewaay ñëpp di ñaan taalibe yëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ak soppe yi yàlla def jàmm ci réew mi yàlla def jàmm ci Sénégal def ko ci Kaolack def ko ci Medina Baye def ko ci eh, fi nga xam ne mooy àddina bi yëpp presse bi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm seen teewaay loolu moo doon kàddu yu mujj yi wa aaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin Euh, je m'appelle Cheikh Diangay, un des adjoints au président du COMAF, Cheikh Baïmamou, ici présent. Donc, comme il l'a dit en Wolof, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et prions sur le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu Et nous réjouissons d'avoir assisté à cette rencontre à côté du préfet de Kaolack pour déclencher le processus de préparation du Mawlud international de Medina Baye. C'est juste euh, une séance pendant laquelle nous démarrons la collaboration étroite qu'il y a entre les autorités étatiques de ce pays et le comité d'organisation qui agit au nom et pour le compte du Khalif. Euh, nous saluons au passage les relations, les très bonnes relations qu'il y a entre le Euh, euh, la partie administrative dirigée par monsieur le préfet et le comité d'organisation, le COMAF, dirigé par Cheikh Ibrahim Mamounias, ici présent. Euh, comme il l'a dit en Wolof, on ne va pas s'étendre trop, juste dire qu'on a discuté de tous les points que nous pensons être importants pour que l'organisation du Maouloud de Médine se passe dans les conditions les meilleures possibles. Je veux juste insister sur deux à trois. Le premier, c'est sur la voirie interne de Kaolack. C'est important et le préfet a donné des consignes pour qu'au sortir d'ici, qu'on tienne une séance de travail avec l'AGEROUTE pour aller très rapidement dans le sens de préciser les axes à euh, réhabiliter pour que les gens puissent circuler correctement dans la ville de Kaolack. Le deuxième, c'est que le Mawlud, comme il l'a dit, va se tenir en période hivernale. Donc tout ce qui touche aux questions d'assainissement, évacuation des eaux usées, etc., va jouer un rôle important dans l'organisation du Gamou. Et le dernier que je voulais souligner, pas le moindre, est le, la demande qui provient des autorités de Médina d'ériger le poste de santé qui était là en centre de santé. Pourquoi Parce que dès qu'on disciple avait pris l'engagement de reconstruire ce poste de santé et ils l'ont reconstruit vraiment, un poste de santé qui sera euh, euh vraiment un poste moderne. C'est pourquoi nous pensons que l'État pouvait accompagner cet acte en érigeant ce poste de santé en centre de santé. Nous savons qu'il y a des critères techniques qui gèrent le ministère de la Santé, mais nous sollicitons les autorités de l'État de tenir compte de la spécificité de Medina également pour savoir que la demande d'ériger ce poste de santé et euh, en centre de santé est une demande qui se justifie compte tenu des autorités présentes dans ce quartier et qui quelquefois ont besoin d'un service d'un médecin dans des circonstances euh, particulières et très rapidement. Donc c'est pourquoi nous pensons que l'ériger en centre de santé sera très bénéfique, non seulement pour Medina Bay, mais également pour tout le ce, système euh, sanitaire euh, sénégalais. Euh, donc ce sont sur ces propos que je voulais clôturer euh, mon propos, vous remerciant déjà de votre présence et vraiment de la couverture médiatique que vous faites de cette euh, réunion à chaque fois que de besoin. Merci beaucoup.